national euh, am na débat bu fa tàmbali bu fa tàmbali am mm-hmm. euh, Ousmane Sonko je pense que fii ak le le 5 juin euh, war na sacrifier au rituel de la déclaration de de, de patrimoine mm -hmm. euh, on se rappelle que Amadou Ba bi ñu koy doogo nommé mm-hmm. et puis on l'avait même fait à les les les les, les libéraux defoon nañu ko Abdou Mbaye mm-hmm. def motion de censure contre Abdou mbay mais motion de censure bi damul Amadou bi ñu koy doogoo nommé Euh, waa PASTEF ak euh, certains de leurs alliés euh, tegoon nañu motion de censure contre Amadou mhm. même si la motion n'a pas n'a pas abouti mhm. cette fois-ci ñu nekk ci configuration Assemblée nationale bu risqué mhm. bu doy waar le parti aujourd'hui au pouvoir n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale non seulement ce parti n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale mais dafa am fraction friction Euh, ak fracture au niveau du groupe Yewwi. Yewwi tas na amul groupe ah, Yewwi. voilà Yewwi tas na donc ça veut dire que euh, taxawu Sénégal day jël ay député am. à ah. waaw. Euh, PDS moom yàgg ñoom jël nañu seen yoonu ah. bopp bu yàgg ñoom après les élections ils se sont ils se sont libérés mm-hmm. de l'intercoalition mm-hmm. PUR ak PASTEF euh, les relations se sont, se sont, se sont grippées mhm. euh, à, pendant la, la période préélectorale pré, pré, pré ak même pendant la, la campagne mu mel ni tey Pastef dafay jëlaat vingt cinq députés mhm. la fa la fa la fa am mhm. mu mel ni tey bu ñu defoon motion de censure le gouvernement va tomber. Mm alors ñoom du côté du pouvoir ils ne goûtent pas trop à, à cela parce que xam nañ li ci li ci nekk. Mhm. Euh, yow da nga koy considérer comme un jeu normal euh, dans le processus démocratique. Mhm. wala jàpp nga ne war nañ leen épargner ci loolu. non bu ñu defee motion de censure am na ci droit mais man li ma gëm mooy comme ne dañ dem élection. Mhm. sénégal yi fal leen pour man nañ leen accompagner. mandat député bi jeex ñu organiser seeni élection mais ñu bàyyi gouvernement bi continuer. waaw mënuñu xaar mandat député bi jeex parce que assemblée bi septembre. lay am non septembre là quoi c' est que xam nga deux ans la am droit la am droit. dissoudre pour waa dissoudre élection donc septembre quoi laa bëgg wax fii septembre. maintenant xam nga loolu bëreetul. septembre sax mënul dissoudre. waaw mais ouverture session beeg yooyu je comprends mais li ma gëm mooy comme dem nañ élection population bi tànn. bu pré bu premier ministre ñëwee assemblée pour man na ko gars yi déglu jël nañu recueillir information yi def ubbi débat def lépp mais ñu bañ a def ay motion de censure bàyyi parce que boo defee motion de censure tas gouvernement bi doo gouvernement parce que loolu mooy continuer kon sinon ñu proposé premier ministre pour man loolu mun na ñàkk en tout cas sama point de vue personnel. donc jàpp nga ne yéen au niveau de taxawu bu gars yi defoon de censure doo leen doo leen ko soutenir bon mënu mu wax ci turu taxawu. mais man li ma gëm yaakaar ko mooy waru waruñu waru waru am motion de censure parce que pour man comme sénégalais yi voté nañu élection ne diw lañu ñu fal mu def gouvernement am ñu respecter volonté populaire boobu mu continuer assemblée nationale mais député yi am leen droit def def leen yoon may loolu moom seen droit la loolu moom kenn mënu leen ko tere mais man dama pour man sama sama gis bu gàtt loolu la laay ñaan yàlla bu motion de censure am ba ñu kon ne gouvernement bi mën a liggéey war a liggéey